yi ñu seetaan ci seen site 28 pro ñu ngi am mbégte di leen euh, dalal ci waxtaan muy entretien exclusif boo xam ne nii mën naa koo tuddee le retour de Omar Ndiaye ñu gën koo xam ci Angloma fii ci euh, ci seen politique bi à Mbacké gannaaw absence boo xam ne nii bu ñu nemmeeku woon la askan wi euh, mu jaaxaloon leen la ñu lay nuyu di dalal ci si 28 di Sidi Baydaan maa ngi lay fay di am mbégte contentement bu mag. ci site bu mag bi tey ñëw di ma dalal muy site boo xamante ni àdduna bépp ko bàyyi xel di ko déglu euh, nga jóge woon démb ci parrainage bi donc tey ngeen ñëw pour jël ma entretien donc ma am ci mbégte contentement bu mag di ñaan euh, ñu def ci émission boo xamante ni képp ku ko déglu dana nekk njëriñ ci Mbàkke dinañ nekk tam njëriñ ci réew mi di nuyu itam sama am di jàmm yi ma toogandool yëpp di leen sant di leen gërëm. waaw euh, Omar Ndiaye Angloma Mbàkke dañ la gëj a gis. Euh, lu waraloon euh, raar. waaw xam nga man Mbàkke filaa laa juddoo filaa laa màggee euh, fi laa defee lépp fi laa fubbale li ma am lépp fi laa ko defee donc ñii ma toogal tey di samay mag ñu toog nii ku mel ni Omar Touré donc ak ñeneen donc man dëkk bi du dëkk lu may bàyyi xam nga dafa am man politique maanaam li ma ciy mën mooy stratégie laa gën a ay boo xoolee euh, euh, réunion yi euh, bi ñuy préparer si élection locale yi chaque week-end dama naan ñëw Mbàkke ñu def ay réunion pour préparer élection locale yi bi ñu préparer élection locale yi ba élection locale yi jub si ñu def ay investir investiture yi ñu def donc man li ma jàpp mooy waxtaane nañ Mbàkke mais investiture dañ cee war a toog woo waa Mbàkke ñu waxtaan ci ñu xool kan la ñuy jiital ak kan mooy topp ci kii ak kin mën topp ci kii biñ ñëwee donc ñu jiital biñ ñu jiitalee Gallo donc contexte wu ma nii wa euh, tax ñu koy jiital mais li ma ko li ma li ma ci xam mooy euh, moom ci jëmmi boppam woo na ma téléphone jëluma ko loolu politique la donc def na ay démarches tam pour ñëw ñu ànd mais defuma ko parce que man li ma gëm mooy lépp lu may def dama koy def ci sama conscience tranquille def ko tam ci xel mu dal def ko tam ci sincérité maanaam naxaate baaxul quoi bu ñuy ànd dañuy ànd ci sincérité ak euh, ak lu honnêteté donc euh, cabinet présidence laa ne man donc euh, biñ ko investir euh, ñëw nañu niñ doxalee jox na yuusulum ni ma jox ma say kayit ma jox ko samay kayit donc ñu toog yuusulum wax ma ma ni ko bon woo ko mu ne ma Gallo jël na kayit yi donc woo naa ko ne neen na ma Angloma maa woo jotante wuñ ba mu def 4 jours ma woo yuusulum ni ko na ma delloo samay samay samay samay kayit parce que carte d'identité nationale laa ko joxoon jox ma ko photocopier Youssou jël carte d'identité bi donc bi liste yi génnee nen ku ma ci ma jàpp ni ku am yéene def la ci ñu nekk ci liste donc bu ñu leen joxee carte d'identité am 4 jours man li ma jàpp mooy kooku bëgg na bëgg na nga def ko ci liste yi. donc euh, bu ñu liste 4 euh, jours bu ma jëlee sama carte d'identité nationale liste yi génn nekku ma ca donc taxul ma ñëw nii lii baaxul taxul ma wàcc terrain bi yàq taxul tam ma jël sama liste euh, sama kayit dem dugg ci beneen liste dama toog c'est neutre. neutre bi nag donc ñañ investir pour maire yi donc dañ investir pour ñu nekk maire ñi nekk adjoint maire ñooñ loolu la ñoom ñoom loolu la li ma concerné mooy parti bi nga xam ne dama ko créé en 2009 jàkkaarloo ñoom Iba Gueye am fi fi 2009 2012 ñëw ci pouvoir bi am na ay poste responsabilité ñoo xam ne bi yëf yi neexee lañ ñëw ànd kenn bañu ko dolli dolli yokkute ci parti bi mais parti APR man li ma jàpp te gëm ko mooy icône laa ci boo xamante ni nit mun ma ci dindi. Euh, bi loolu amee damaa toog seetaan ka nga xam te nii moom moom parteem ñu bokk ko waaw man parti bi kenn ëppalu ma ci muy président Macky Sall donc maa ngi ci wetam ñi ngi ànd di liggéey maa ngi koy jàppale ci euh, liggéey bi muy taxawal liggéey réew mi donc moo taxoon ma toog seetaan mais tey bi ñu nee parrainage bi parrainage bi président moo ko digle Malick Fall euh, moo ma wool boppam en tant que maire. ni ma dafa jot ay ay tur ñoo xamante ni les responsables yoo xam ne dañ leen a war a woo ma woo la pour ñu daje Mbàkke euh, pour affaire parrainage bi fekk avant loolu am na information bi fële cabinet président donc moo tax démb ma ñëw ci ci ci ci euh, ndajem ndajem ndajem ndajem parrainage bi. d'accord euh, laataa ñu ñëw ci loolu nga xam moom mooy parrainage bi mais dafa dañu ne. yow dañ la tuumal tuumal ci élection locale yi ni ne yow doon nga campagne ci suuf pour ñu voter sanction ndax gisoo ci sa bopp ci liste loolu loo ñuy mën a leeralal la am la wala amul. man Abdou Mbacke Ndao laa faral élection locale yi. moom nga faral lu tax. xam nga yéen da di jaawale benn affaire man damaa xeexal président Macky Sall ba ndi ko ci pouvoir bi maanaam cere ji ba muy nekk nekk nekk euh, maanaam mbool ca àll ca àll ba ca ñëkko ji ci laa bokk kenn du ma santal ci politique li ma gëm laa ciy def ab Mbacke Ndao c'est le maire de Mbacke. yaayam di baa maamam di sama sëriñ yaayam doom ju ma am moo ko uuf tudd ko man nekkuma candidat maire yi ma ni man damay xeex lu daane li ab du ma ko def loolu mooy mooy problème bi pour mu leer kani man li may ragaluma ko. kon looy looy confirmer la ne dama ni xam nga dama ni dama ni Abdou Mbacke Ndaw bu doon xëccoog Mbacke gépp ma jàppale ko moom. man loolu laa gëm. dama ni. li may wax à constat commencé ci max Mahmoud Saleh ak ñi nga xamante ni nii ñoo wër président di complot laa wax am na loo xam ne boo ma ko wax loo ma répété waat ko man am nañu ni ma journaliste si Mbàkke yi buñ la woowee bul wuyu bul wax ak ñoom parce que yow nee nañ ma am na ñoom dañ naan kii daa jege mooraan man li may ragaluma ko xam man dama gëm yàlla cest à li may wax dama koy gëm ndax damaa leer ni damay lanoo sama ndeyjoor man politique bii bi ma ciy dugg engagé wu ma politique pour am ci xaalis man wala ay kër am na sama kër ci Mbàkke goo xam ni raaxuma ko te man leer na ma li may joxe tabax na étage li ma ci dugaloon mooy na réew mi changé li ma ci dugaloon mooy na Mbàkke changé am am dara man politique ay kër ay bien ay compte yu fees dugaluma ci loolu la bu la ci dugalul da ngay am équilibre pour pour pour pour mën a wax li nga gëm xam nga tey man ma wax dara mag Sall woo ma ne ma ee eh, dàq naa la Macky Sall tey même boo doon dàq ci lan la may dàq danga naan dindi naa sama décret bi ma la def mais kenn mënu maa dindi ci APR man c'est le membre fondateur li ma ci gëm laay wax li baax laay wax ki nga investir comme comme comme mu nekk maire pourtant même bi mu lay jàppale si moom nekkutoon APR ab mouvement la fi ñëwee est moom mi nga investir ba mu nekk maire est parti bi tey bu bu bu bu bu yàlla ngoon tey est-ce que na ci Angloma mën a toogee est-ce que moom ça day dem. Euh, nu mu tuddati euh, du membre fondateur boo xam ne man parti bi moo ma ñor ay affaire de maire yeeg ay affaire de député ay affaire de nangam man loolu intéressé wu ma. la ma intéressé mooy euh, parti APR bi nga xamante ni en 2009 maa nekkoon mandataire am Idrissa Félix jàkkaarloo ñoom i bëggee am fi 4000 waa ak 9 conseils parti boobu laa dul bàyyee kenn. mais d' loolu am na lu kon élection locale leer leer na sa position leer ñu jëm ci législative di waajal parrainage yi nga xam ne donc Malick Fall ñëw na moom muy pôle responsable pôle régional bi. Euh, dafa mel ne dafa am lu la dig moo tax nga ñëw wuy si walla. luñ ma dig ci lan. ah comme yow àndoog ñoom ci local yi. xam nga xam nga xam nga xam nga Umar dama lay jël comme seede yow xam nga ma yaa ma man li ma gëm laay wax man APR laa man bi may ànd ak président Macky Sall Abdoulaye Wade woo na ma proposé ma cinquante millions ak ñaari 4x4 maa ngi koy kii di ko confirmer ma bañ. kon bu ma gëmutoon li ma doon damay dem jëli jëli jëli xaalis boobu dem sama yoon. te am nañ samay mbokk ak ay samay xarit yu ni ma jëlal xaay bi dem ndax xamoo ba xam Macky Sall day gañam dem man leen Macky Sall du ma ah bi may ànd ak moom damaa jàpp ni bu jotee réew mi dana ko defar kon man ay cinquante millions yooyu du tax ma bàyyi ko ànd ak moom xeex ba ndi ko ci pouvoir bi. waaw léegi nag. waaw te ci laay lay wax dama lay wax. donc ci li ma moom. man ci laa ñëw. muy APR APR ma ci woo damay ñëw. xam nga da ngeen di jaawale benn affaire la candidat de maire du candidat candidat maire du candidat APR du Macky Sall déedéet. candidat askan wi la président mën naa am choisir que ni kii moo laaj sama candidat Angloma jàpp ni kii moo gën ci Mbàkke Macky xamul kii gën ci Mbàkke day jël choix politique rek mais xamul kan moo gën ci Mbàkke. Ah, loolu tax loolu mu jiital mu jiital Galon. waaw dama ni dama ni dama lay wax. jàpp ne moo gën ci Mbàkke nag moo tax. dama ni dama ni xam nga xam nga Sidi dama bëgg ñu waxtaan. Macky Sall xam na lan moo gën ci Fatick xam na lan moo gën ci euh, ci ci ci Sénégal. mais en réalité fii Mbàkke man Macky Sall mënu maa xam la fi gën ndax kër kër gu fii kër gu fii senn xam naa ko ku fi dee mën naa dem ba ca kër jàll nan ngay mën a dëkkoo ci dëkk nga ne yaa gën a xam ña dëkk ci dëkk ba dëkk ba loolu ku ko wax da wax wax caaxaan donc il faut ñu gëm que ni réew mi ñun ñoo koo dañ kee bokk ba pare nekk ay nit yoo xam ne nee naa la dañuy dee laloo suñu ne jox dañu war a ñomee nit nit booy jàppale euh, président daal wala kilifa da ngay ñomee ñome mooy di ko wax li nga xam ne mooy li gën mais bu fekkente ni ni yow poste ba nga yor wala teraanga ja nga yor da ngaa ragal ni boo waxee la nga gëm ñu nangu ko mais kooku kooku kooku sëriñ Ba sëriñ bi jarul sax ñu lay jox ay ay ay ay ay responsabilité Omar Ndiaye Angloma membre fondateur APR nekk conseiller ci présidence de la République chargé de mission euh, donc kon euh, parrainage yi yaa ngi koy waajal fas yéene ci indi sa benn appui boo xam ne nii maanaam ñoom lu ñu yaakaaroon ne kon euh, dina dina euh, da nga leen da nga leen da nga leen fental dara daal loo xam ne maanaam duñ ko foogee woon wala. waaw mais dama laa wax ni la man APR luñ ci wootee damay ñëw président Macky Sall lu muy def ñu leer ni lii pour président la dama cey dem ba jeex tàkk mais pour keneen non loolu sama yoon nekku ca man parrainage bi président moo ko moo ko santaane. élection député yi ñuy wax ni élection député tey bu ñu ne woon Sidi Diakhaté lañ investir ma dem campagne Sidi Diakhaté. parce que majorité assemblée nationale moo mën a tax président Macky Sall gouverneur réew mi mais pas ay maires man politique laa lay wax. d'accord waaw léegi bu bu politique boobu noonu jàllee. waaw parce que li ñu xam naa ne samay samay minutes tey dama koy limité mais day doon loo xam ne lu gaaw. Euh, damay duggaat tuuti ci conseil municipal bu bees bi nga xam ne nii yow xam nga ñi fi nekk ñëpp xam nga waa Mbàkke xam nga conseil yi ñu fi tabb yëpp defoon na commission yi ba ji am maire maire bu beneen maire bu bees. tey am nga yaakaar ci équipe municipale bi nga xam ne moom moo nekk Mbacke wala en dehors de politique nag laa parce que dañuy wax askanu dañuy wax njëriñu Mbacke. xaw ma conseil municipal ya xaw ma commission yañ taxawal xaw ma adjoint au maire yi man lu sama yoon nekkul du ma ko sax xool loolu ña ko ña ko ña ko def ak ña fexe ba gañee nañ fexe ba lañ leen lañ leen Mbacke yaakaar ñu def amoo ci yaakaar ci conseil municipal waxuma aw ma ci yaakaar dama ne sama yoon nekku ci waxuma yaakaar ak ñàkk yaakaar de dama ni xaw ma kan mooy premier adjoint lijjantiwuma kuy deuxième adjoint maire ba lijjantiwuma ñan ñoo yor commission ya sa yoon nekkul ci conseil bi daal. lan mooy ci sama yoon sëriñ bi man campagne ñu ma ca yàqu ma ca waxuma ca fal nañ leen def nañ ay ay commission fal nañ ay premier adjoint au maire lañ wër Mbàkke bañ wax ne bañ wooteel leen nañ ko nañ ko defal ko waa Mbàkke. ndax ma wax la laaj loolu yi da doon boo xam ne nii waa Benno Bokk Yaakaar rek ñoo ci nekk ay poste ay commission lañ dénk sax yeneen parti yoo xam ne nii. parti opposition la ñi nga doon jongante nekk ay conseil ñu dénk leen ay commission am si di man ku maîtriser conseil municipal la ndax damaa dirigé ab liste 2009 jàmmaarloo Iba Gueye am 4009 conseil xam naa xam naa lan mooy conseil municipal mm-hmm. gis nga euh, ab commission tey yow boo amoon partenaire tey wax ak moom ba pare bu mair bi maire maire bi validé wul doo dem gis nga gis nga conseil municipal commission c'est le maire mooy mooy pimo bi maire bi mooy dox lépp dox doxul dara du dox ay commission yooyu xam nga lan la ay cër ci politique rek ay kat jàppal ci lii nam tati doon nga ci sonn mais tey premier adjoint au maire deuxième adjoint au maire troisième adjoint au maire ba septième adjoint au lan la mën a décider lan la mën a décider ci maire loolu loolu loolu xam non dama lay jox dama lay wax dama ni la xam nga lan la c'est mais dama lay wax baal ma ñëw rek xam nga lan la symbole la rek la rek mais tey bu ese bu maire bi esegee du premier adjoint maire bi la ñuy laaj bu réussiree du premier adjoint maire bi lañuy ñuy xam nga kan la laaj maire. léegi conseil municipal bi nga xamante ni mooy conseil municipal bi nga xamante ni nii ñoom dañoo nekk ay maire parce que conseil municipal c'est le maire. ñoom si seen jëmmi bopp ñoom tam war nañoo jouer rôle rôle bu mag comme bi maire bi war a jouer. bu doxee ñu ni ko ah baax na bu doxul waaw dama lay foofu danga maa laaj maanaam ni ma ma lay wax politique maanaam loolu xam nga léegi généralement dama généraliser yi fépp Sénégal un conseil municipal c'est le représentant des quartiers ak Mbacké fii daan na taa ma dem joytu ko maire fii amutoon lampe ma dem joytu ko maire maire mi ngi woote benn budget boo xamante ni nii vraiment lii xamuñ fan la jëm ak lan fan lañ ko yóbbu man en tant que conseiller lii sama xel dalu ci am nga droit ni maire lii man duma ko wootee même boo àndeek moom mais fekkente ni nii par exemple maire bi ma ngay def am ay mbuxumam nga andi yow conseil municipal ba parce que bu tabaski jotee jox la ah, ah, xarum cinquante mille bu màggal jotee jox la vingt mille ak saaku ceeb nu mu tëddee euh, nga ni ab nu mu tëddee dootoo conseil municipal lu dëkk bi conseil municipal lu bi nga. kooku maire bi bëggee jalgati sëriñ bi mënoo ko ni doo fi jalgatee parce que daf la ger parce que da la téye cest à il faut nit ñi gëm ni. Euh, tey mën naa jël exemple tey benn conseil municipal bu ma xam ne conseil municipal la te démb laa ko xam ku mel ni Goumba Mar tey tey Goumba mën naa ànd ak yow ngeen campagne ba yëg ci kaw senk bii la wax ni yàlla son sa nga def ko première adjoint au boo jengee mu taw day lànk am na ñoom ñoo na leen yëlla bindee dañuy bañ am na nag ñoo xamante ni nii për rek la ñuy doon ñoom mi maa ngi xiyoo ni maa ngaa niwul xiyoo te bu baaxul da nga daan baaxul d' accord Omar euh, Angloma euh, moom la ñu dalal ci seen euh, entretien exclusif koo xam ne nii maanaam dama ko tuddee le retour de Angloma à Mbacké loolu looy firndeel la da ngay samp dëggalaat sa bopp parce que jiital la fi loo xam ne maanaam ñi ne ci campagne yi danga dem wuti xaalis dem ci Farba Ngom ah dem tafu ci moom mu lay jox xaalis parce que fii jàpp nga ne boo fi sa poche moo moo ko dul fekkee ñëwal ci loolu. barke Cheikh Abdoulahi Mbacké borom dër bi laa wax nga moom laa yaakaar. man campagne bi ba mu jeex campagne bi bu fekkee gisante naa ak Farba Ngom rek yàlla ma gisantee Cheikh Abdou Mbacké man xiyam Farba Ngom donc maanaam waxuma ànd ak moom di campagne ñu gisante rek man ak moom naa lu ne Angloma dafa dem mercenaire ju Casamance dafa dem mais mercenaire mooy lan sax ci politique dafa dem mercenaire ju Fuuta lii loolu waaw mais dama ni loolu daa amul fenn xam nga dafa am ñoo xam yàlla moo leen may maanaam daal challenge maanaam bay rek mais yow mais yow campagne loo Abdou Mbacké Ndao ni xam nga man damaa wax nii campagne ma la Abdou Mbacke Ndaw campagne lu ma Gallo bu man bu ma doon campagne damay ñëw futte ko wàcc sur le terrain. da mais kan moo ma gis ci campagne mairie yi ma ñëw ni bu leen wooteel Gallo wala Gallo baaxul wala benn. moo jaaxal ñëpp kan moo ma gis man leen wooteel leen Abdou Mbacke Ndaw kan moo ma gis ma wàcc ma damaa ñëwul sax Mbacke. nga nekkoon lan nga fan nga nekkoon. jour vote bi laa ñëw voté. Ah, ñibbi waaw foo foo nëbbatu woon. waaw mais dama ni dama ni xam nga man dama am Sidi nu may doxee te Sidi yow mii tey bu ñu defoon micro trottoir am nga loo xam ci man parce que yor naa ASC nga nekk secretaire général ba cest nit ki loo lëg loo ko bañ bañ bañ bañ danga da ni noppam yu gudd na mën naa daw mooy politiquement ak stratégie ak xeex ku ne mën na koo nangul Angloma mais man bu ma nangoo man Angloma man bu ma demee ba ñii yar ma ñoom ñii samay mag yi ma jël sama saak dem ca Fuuta ànd ak Farba Ngom hee hee maanaam waxuma sax waxuma sax en en waxuma sax man ma sax en politique mais ci sama juddoo ak sama deret sax man ma dem ànd ak Farba Ngom di ko campagne loolu sama ngor sax mayu ma ko waaw dama lay foofu pour mu leer loolu sama ngor mayu ma ko parce que man Farba du sama xarit siquma ak moom dara Farba député la ba pare nekk géwélu Macky Sall kon man nan lay demee di jël saagu Farba Ngom wala may du ma ko def beneen bi mooy Casamance ka ñuy wax man Casamance campagne yu ma fa suma xarit buñ naan Babacar Ndiaye mooy directeur général aéroport avant ñuy inverser liste yi moo amoon meeting foofu invité ma fa ma dem fa bala boo fa gëj man Dakar laa toog suma kër Dakar tam amul mitinu APR benn mitin bu ma génn dakaar ànd ak benn responsable politique man amul dama ni Sidi man dafa am lu may nangu ak lu ma dul nangu yow xam nga dama la man lu ma bëgg a def dama koy def lu ma dul def du ma ko def tey jii euh, nu mu tëddi euh, Abdou Mbacke Ndaw ak Gallo Massa Abdou Mbacke Ndaw bu ma ànd defal Mbacke fii dañ sama kër maam Gallo ba mii ngeen di wax 2014 maa wax ba mu jiite liste APR maa wax ba mu jiite liste APR te koy wax moom fu mu mm, mm. fu toog da koy wax na ko dem laaj nga introsé ko ah, dina am dina am tontu de Gallo Moustapha Diop mii Moustapha Diop mii mu amal problème daf maa woo ni ma grand ma ne ko Moussa ma waaw da ngeen a bëgg a seetaan ba grand ba galo du jiite liste yi ma ne ko lu sama bakkan bii rotul galo mooy jiite liste yi 2009 man maa nekkoon mandataire APR man kese mënoon na positionné wu du jiite liste bi ndax damaa maa koy jiite mu ñëw sama bureau ñu waxtaan gis nga keroog bi ñuy réglé affaire liste yi xam nga man a galo fan lañ tàqali koo guddi hmm. station Touba station Elton bi nekk Kees fa ma xaar ba ma ñëw waxuma man ma xaar ko moo ma fa xaar moom mooy ci local yi wala ci. local 2014. 2014 oh local 2014 bari na gars yi daan ñëw uuf sama bureau sama sama sama sama fauteuil yi bureau toog fa. ah bon tegale kebele nii seen i tànk di ma xaar. nga xam nga xam nga Sidi. dama laa wax ni la man du ma wax lu ma gëmul. gis nga Baye Aliou Ndiaye bee di jaay pièce détachée bu jàkkaarloog euh, Jobaay sëñ Cheikh Saliou xam nga kooku booy yi jaay pièce détachée foofu. Mhm. te tey jaay batterie yi. boo paree dama intéressé ko ni ko 2014 Angloma fan la dajee Gallo moom moo doon dawal jour boobu Gallo pale la jógee ba moom mu xaar ma mu xaar Gallo xaar ma ci station tel tamit biñ waxtaanee may déglu rek biñ waxtaanee man ak moom ak Moustapha Cissé Lo ba ma d' accord que ni Moustapha man Gallo laa d' accord pour mu jiite liste yi Isma Dioum passe ma fa Moustapha Lo ñu wax ak moom keroog Gallo dafa continuer rokaatu Touba ba dem fekki Moustapha Lo këram ma ñëw fii sama kër Mbàkke toog invertir nañ liste yooyu kër euh, kër euh, kër Moustapha Cissé Lo bañ Gallo gas Gallo tête de jaaruma kër Moustapha Cissé Lo xam nga am ban position lañ ma def ci liste yi vingt position lañ ma def ci liste yooyu 2014 ñu wax ñu ne Angloma eh moo wax Dagalo jiite liste fu ñu ko def ci liste ne defal naa ko lool est-ce defal na ma lool. waaw léegi. ah loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy li mooy li am li may wax kay nu mu tuddati dama laaj ñeneen da ngay da ngay dem ci Baye Aliou Ndiaye nga ni ko Angloma mu danaan la maa doon dawal maa ngi taxaw. waaw léegi léegi nag léegi nag euh, euh, ñu dama xool ba xam. di nga tourner page bi wala puisque lii ñuy jëm parrainage la ak yeneen échéance muy élection législative euh, Gallo campagne na ci locale yi ba ñi mu àndal ñëpp ñu gañee jël mairie bi mais dëgg yàlla quoi pour campagne na liggéey na tamit loo xam ne tax na mu falu. xam nga xam nga galo Ba waxuma campagne mairie Mbacke waxuma sax loolu mais reyante na ci àddunaam. ba góor góorgóorlu ba am ay jeunes fonctionnaires yoo xam ne galoo fexe bañ liggéey fa ñu liggéey loolu man dama koy nangul bu ko neexoon tam politique dafa metti mu nekk fonctionnaire am yor xaalisam toog wala mu dem banque mondiale wala mu dem mais dafa engagé wu ñëw pour politique Mbàkke politique yombul loolu dama ko koy nangul li mu ni nga xamante ni mi ngi koy def ci Mbàkke social ak ñi muy jàppale dama ko koy nangul politiquement damaa ànd moom man la muy def lépp ci lu baax c'est très bien mais politiquement man politiquement man Omar Ndiaye Angloma damaa ànd ak Gallo leer na leer na waaye léegi nag euh, ci njeextal bi euh, sa sa sa samp si waat si ñëwaat ci Mbàkke lan la <laughs> loo loo xam nga sa feeñaat bokk xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga Sidi yow man ñun bi ñuy dem di jël jàppoo jàppoo dafa duggoon cim ndox dañoo dem jëli ko andi ko muy football si ñu ciy ñàkk suñu xaalis est-ce que dañu ci gone tey fi laa footballé ba bàyyi football nekk naa président équipe bi équipe départementale Mbacke bi yor naa ko juróom-ñaari at est-ce que naa ban xaalis laa ko doon yore Mbacke aw ma fi aller ak dañoo investir ab xam nga bu ma neexutoon du ma joxe sama carte d'identité dama man sama carte d'identité galo yor na ko 4 jours xam nga loolu il faut ñu leeral ko. neex na ma neexuma cest à jox naa sama carte d'identité kii euh, quatre jours te itam leer na ma leeral yàlla ni wallahi azim ba ci jour liste yi génn barke Cheikh Abdoulahi Mbacke borom dër bi man damaa jàppoon bu liste yi génnee dama cay nekk waa nekkuma ca waa damaa war a ñëw campagne ci waa du may campagne lan lay wax sii bi man daasam ñëw na ci man est-ce que xam nga loolu man ak Gallo ñu am fuñ daje te booba nekkuma ci liste lañ waxante man moom moom xam na man xam na waaw mais dama koo posé ni ko waaw léegi man bu ma ñëwee di campagne lan lay wax nekkuma ci liste yi xam boobaa lan lay wax nekkul ci liste yi mais jox nañ ko xaalis mu ñëw te man maa mag xaalis kon kay ma jël cinquante millions Ablaye Wade bu ma ñëwoon rek dañ naan nekkul ci liste ya mais Gallo gis na ko jukki nañ ko jox nañ ko xaalis wutal nañ ko oto campagne ci na donc loolu dama koo passé dama man damaa romb loolu man man man dama boole ñaar Albouri mooy maam ci sama côté baay Massiré Seye mooy sama maam sama ko yaay dama la wax bu en dehors de politique amutoon sëriñ bi man waruma def yi fi ñàkk fayda kër gii nga may laajee gi kër gii di sama kër maam ma Seck Ndiaye fii fanfar fi ko njëkk a tëggale fasam fa sukkur su waraw bi muy dem 14 18 nijaayam la demal 14 18 poam bi la matul ay mbàjj lañ jël mottilee ko poam mu dem 14 18 kooku sëtam war ta ragal war ta ñàkk il faut valeur yooyu kii ndeyam mère Cukum Babu c'est-à-dire Mbacke moom ay la même ñun duñu ay jaam ay nit lañ ñuy xalaat kii am na lum jombale dafay boppam yow mi am na loo jomba def Sidi man ni am ma am lom jomb naa koo def man jomb naa fen jomb naa wax lu ma gëmul retour beeg aller retour bi ngay wax mooy man damaa amul aller ak retour woote jotee ba woote euh, bi ñuy woote jour wat déplacé wu naa sama oto ñëw woote si ba pare deux heures Dakar la ma fekk ko koy yàqul sama retour tam man nee naa la awma aller retour c'est-à-dire élection député yii bu buñ investiroon nit pot lamb be sa buñ ko investiroon ma campagne la ko. élection présidentielle Macky bu nekkoon candidat ma campagne. kon ñu def wéetin si. mais élection locale yoo nekkul ci liste joxe sa carte d'identité nekk ko ci liste boo ñëwee di campagne lan wax. kon donc législative daal wéetin si la ñu ñu ñu xaar ñu ñu toog déglu rek te xaar. non xam nga dama laa wax ni la. non waaw ma loolu. kuñ investir bu dee pot lamb be. danaa ñëw campagne la. Mhm. parce que ñaari affaire moo am foofu sii dañu soxla majorité assemblée nationale pour Macky Sall mën a gouverner ñaar la député de peuple peuple bi la kiñ choisir moom la parce que la le député peuple lañ wax peuple bi la. ah maire bi maire bi choisir maire commune bi la. waaw damaa wax ni Sidi Sidi Sidi mosoo gis benn dëkk buñ def ak investiture mu am treize candidats moo amoon Mbàkke mosu fi am. treize candidats yooyu ku nekk bëggoon a nekk maire. Hmm. parce que nee naa la maire ak député bokkul maire askanu Mbàkke ñoo la fal député peuple bee la fal député Mbàkke mën naa dem dakaar waxal waxal Dakar c'est le député maire bu Dakar maire Mbàkke mënta Dakar dem dakaar di fa wax man li ma man politique dama ciy judd xam teg yi comme ni nga xamee ay temps ak sa école bale. d'accord <laughs> un maire commune am la yor la gérer jur Malick euh, euh, Gallo Ba mënta dem jurubel gee di waxal Malick Fall Malick Fall mënta ñëw jur Mbàkke di waxal Gallo. mais député bi mën na dem Diourbel représenté fa nu mu tuddati euh, Sénégal waxal ko parce que askan wi la c'est le député du peuple de Sénégal gépp nga nekkul député de Mbacké kese d'accord merci sunu waxtu mat na sëkk euh, euh, Omar Ndiaye Angloma moom la ñu daan loon ci entretien exclusif looy tàggoo rek ak di ko dénk tamit waa waaw donc di sant yàlla rek di sant que ni élection yi déroulé na ci Sénégal ci jàmm Mbacké tam liñ fi gis rek mooy c'est la famille Sidi yow su ma rakk nga man am na ñoo xam ne dañ ne moom bul wax ak presse bi mais damay wax yow boo ma waxee damay lay wuyu parce que man leer na ma ni am na lu may wax ak yow loo xamante ni nii da ko respecté kon foofu la nit ñi war a toll maanaam te jàmm di def lu baax un grand journaliste dana dina introsé kilifa sax ci dëkk mu fote mu mu mu supprimer la mu fote parce que danaan bu ma dugalee lii kii danaa ko sacrifier mhm. parce que waxewul sagoom soit bu ma bindee lii danaa ko sacrifier parce que waxewul sagoom mhm. tey un journaliste mën na def erreur angolo maa gis ko di politicien ni Sidi mi moo ko seetaanee lii dana am problème xaaral ma ma génne ko ci sëriñ bi nañ yéeneente jàmm di may digal Mbàkke nañ yéeneente jàmm nañ yéeneente lu baax ku ci ne la ko yàlla jox nangul ko ko man tey bu fekkoonte nii damay yàqal galo wala damay ñëw fii ñu wax ma waaw si dañu fi nekkoon treize candidat dañ maa gën a waalabal pour nekk candidat maa ah, toog kenn déggul tama def benn déclaration maire de Mbacké nag sama xarita di sama doomu sëriñ di sama xarit ma ma bëgg ko dama ab dama ko bëgg ba yërëm ko loolu dafay am nit da koy nangul loolu du lu ma jariñ du kër gu ma jox du oto bu ma jox du xaalis bu may jox mais nit da nga am foo foo foo toll ci moom da ngay dem ba da ngay am yenn santiment de frère ci moom kon euh, maa ngi sant Mbàkke gépp di leen gërëm di am tam yow tam ci mbégteente yow ci contentement bu mag parce que gis nga li lay wax ni Mbàkke c'est la famille kii suma mag la sama mag la doon àndal Vieux Ndiaye leer na ma li may wax ferte la ci moom kalo mi sama xarit la yow sama rakk nga c'est la famille loolu mooy ngay digal nit ñi ñu yéenante jàmm sit euh, yi ngeen am yéen ñii ñu bëgg ko man sa sit moom a gënal surtout Papa Ngagne moo ma gënal surtout keneen parce que surtout Mbàkke la ko moom moo ma dàqal sax fut ban gén bi canal moo ma ko dàqal parce que sama rakk ko moom fierté la ci man man noonu laa gëm kaw ma leneen maa ngi lay sant di la gërëm di am mbégte contentement bu mag ci yow